techno technonics lela mune dañ doon waxtane mbiru technonics walen folo ko uh, duniya na ta mu ne mune la adina soso wala nakala ka man dan kana ya alala mune scientist bobu ne moom gomud yalla ako explosion bala sota ya wo bing bang theory yo mune explosion mo amon bu reey bo xamne ñu ko tuddé bing bang uh, theory wo wo duniya bankonin jiol bota bala mu ne adina si de suuf si ak ndox mi dañ eh, eh, ñoo eh, teggala ko Ahmed Didat yaa ñinin kaal tol yow long waati juma mu ne Ahmed Didat laaj ko ne ko yéen kañ ngeen xam loolu ako ko a kaaye ko ñin 20th century mu ne ko ci 20th century bi lañ ko xam a kaaye ko Dukare mu ne ko lel tayta sura 21 jibe mu ne ko demal ci sura 21 verse 30 verse wo kumo foje mu ne yàlla waxoon na loolu foofu ci alquran al karim fo alquran mu wax ko ci alquran so to yàlla ndo kon ñoom lañ am am xam-xam ala yàlla la warte yàlla moo leen ëpp xam-xam Arun Yahya fana nata fo ñeko mu ne te Yahya itam ñëw wax ñu ne ni alquran o kono jibe soo seetee ci alquran al karim banko mu suuf si yaa mention signa tang anin sabal réew wala suuf wax nañ ko signa tang anin saba fukki yoon ak ñetta lañ ko tudda jo men son si ñaar tan saba anin fula ndox itam fukki yoon ak ñaar ñu ne wo be kafundi mu ne loolu yëpp soo ko dajalee wo be kala tan naa ne nen loolu loolu dafa nekk ñeen fukk ak juróom ne tan tannin sabota mu ne soo jëlee fukka yeeg ñetta ya ya divide by 45 ga de ga xaaj ko ci ñeen fukk ak juróom ya tati tuota nga jël fanweer ak ñaar ba ya divide by 45 ga divide ko 45 ala abadi la exactly dina la jox jomum be duniya ko na ne banko ndox mi nekk ci àddina si ak waya seeda ko bi nga loolu wane na ne seedeel na le déggal na le alxuraan du waxi nit du waxi yàlla la misilmal ñanta katala mu ne julliti war nañoo góorgóorlu ye diinoo long ñu xam suñ diine ba internet jamaanool mu ne ñu ngi si jamono internet aman ko leya jafe yut hani di la samon ya sallallahu alaihi wasallam ya kawan di labo munke ke yonent bi sallallahu alaihi wasallam khutba bu mujjee bi mu mujjee na def ni ya gugul mu soko soo ga gugul ko ibe ibe wo jëla jee di ko fa gis ibe fen jama karan na fa jàngee lu bari ci khutba bobu ñi do ya fo jan say mu amna ko ko fi wax ko musulma ya foire ya amang faro long amang fankama long mu islam wala julit ya xamut ku am wala ku ñaka amam mo fi lo amam mo xamut ku xess wala ku ñuul ni nga jëm bu ta damenta ni mbé laban na si suñ gisee fi ñu jógee ak fi ñoo mujjee. woo doon mu kawandi baal loolu rek waare bu rëy la. waaye atandi na ko man satalaale Mario. ministre bi nekkoon wane na ne yàlla de mooy mooy buuru. hadama di wa nag. mu ne doomu adama bi nag. i ñanta kala ko min ala xalifo banko ni be ba ni ala ye niyoo di la. mu ne yàlla dafa da nga war a nekk ne yow xalifa bi nga xam ne nii gannaaw yàlla jox na la ruhu. ala ye bula mun na ya baara woo la. yàlla sas nga def loolu. président ol mu ne président yi wala alaya attributes dool bi jee alaya woo dii mu ne am na manqude yoo xam ne ni yàlla daf leen ko jox wala na mbe président o daani la moo tax ñu ngi ñaan président ala be marari moo sifa bel la yàlla nag mu ngi saytu ay façon nit yu nekk moo jowol nit ku baax moo betool nit ku bon mool mu yaa koŋ nit ñu ko bugg mool mu kaa ne ñi ko saaga parce que yanka gatoo ji ninkane yàlla munoon na leen a faagagal ca saasi comme ay mu ngi kee munul ci jamono luuti nim leen moo fanan scientific evidence o bi jee loolu itam am nañ scientific evidence mooy imam karamo Touré ba fola ne am na bés mu ngi dégg imam Touré mu ko wax si kumo mala fatalem fo imam fati naami ratelem no ah. ba taata mu ne waaye soo demee bii mu ne tey hani scientific evidence o yaatandi ko ala ye yankankato jindi mu ne même scientific evidence wone na ne yàlla faagagaloo na ñooñu wacce ala yam balandi moomun na mu ne loolu lu ñu yàlla tere pour na nafaale loolu su njëriñ la mbe président o daani la maa ngi ñaan président ase yam fa comme ñunul yaa mu jéggal ya daani ñaan waxkat yi niñ fi ñaane woon kila mu ne rasul sallallahu alayhi wa sallam doolta jawol ka feerol kaye mu ne bu njëkk noonam yi dañ ko daan fexeel pour ka faa pour rey ko doolta ka duwaale ay duwaake yéen mu ñaanal leen doo bi jaay wal son mul ya dolo mi koy bay abat wal sinota tambita la yéen yi nga xam ne ñoo naan ñoo ñu mandi ñu nelaw mu romba boo bee bala faale moo ko waral mbe ala daani la ñu ngi ñaan yàlla ala président men di ñaan yàlla yàggal président Jammeh suñ kanam mu seddal réew mu ne moom de ministre bi ne mu lañ hakkilo bakam birim be toro mu ne mu ngi fàttali ko bi nekk ci tool mu ne bi kera banju la ko waxee fii bi baaf de doomam bi jotee doom bu jigéen alquran o muta Fila la waat banjul ci alquran aka mu ngane aduma kera ca guddi googa mu ne mu ne moom président Jammeh lum éeneel doomam bu jigéen fukki kerak foog mu ne loolu la éeneel doom yi Gambie wona moom mu yaa faya alquran o muta mu ne kon na ku wax loolu ci alquran fenn mu yaalan ka ba sondo ne la ni ci xolam la ko kon nga koy kon kan, ne ko nga ñu mi kan Modou ne ne mu ngi ko suñ bi Modou dun kila ka ko president mu benn bés mu ne ko yo excellence tana mool jibe comme ke fan jibe mu ne bu leex seete nit ñi comme ni nga gisee sa bopp mu ne ko li la yàlla may de mayut ko ñeneen ñi wo ala le ka wo so mu ne lolou yalla moko de def ci nit ala ya ci sa mbaax dañ ko wax rek ndung aka fe jamaale ko kulloo ni mbankeero lu bari ga de def ci sekkere lu mba daan ambe ala man la daal ko ñu ngi ñaan yalla mi bu ala ya mendi ñaato yalla yagal ko suñ kanam nga niyo ala fa banko sambala daal ni ak sammi ben fi nga bu ga yobu rew mi ala ya futandi yalla yobul ko fa wasalaam wasalaam kóoto parce que dañoo jàngee ci yéen luwolunka karangal tole tan buñ fi dajee luwolu nin benta jang di ñu indi lu ees alse ku naati ñe eh, wax nga be agsi ci eh, deet si bi eh, ye kuwol fo furata deet deet si deet waaw ba ngi nekk ci Jordan ah, ci Jordan ah ok ba ci Jordan te ci waxtaani Imam Touré aɗum ah, Imam Touré la kaccaa kono xam nga wax na fi yëfi góor jigéen yàlla ye ñi luuti la mool fo janne ni leen yéen yonti yàlla nuut eh, eh, luutu la ye min ke ni leen yàlla ponisee ala ye halaki ñamin ca géej ga baa kono lii moom docteur Tangara docteur Tangara ka min foten dellu si waat na ci ay wala kumoo cinquante moo tax bu président di wax yëfi góor jigéen wala ni président ka ñi ke wudel la kuwo fo dafa nekk loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel am sen ñantale nga hakkiloo tujee parce que ci jamono yooyu ako ah, kaato waatol la am na nu leen yàlla ponisé ah, ala ye ponis le nun ñaala soo su ci président waxee ñu bar cee bàyyi xel woto ni président kumata woto ñantale kan hakkiloo tu bàyyi ci xel nga hakkiloo tujee xam ne ci jamono jooju nga lon ko wo jamono la yàlla sax am na nu mu leen ponisé woon ala fongo ye yankankati le nu ñaala looloo tax wala tina bu ci président di wax ni président bi diamula jee Eh, ñu def ci mu xam ñu xam ne lu am solo la. sa lon ko kuma kuma baale ma fayda xam naa ne ci waxtaani président ñaalon président la banque kono dina ci dellu si waay abe kumoo doo fola jeele waaye bu ci dellu si waay bari naayaa fo ñu déglu ko bu baa sa lamoy ba bete jëriñu sa seen nafa dinañ mun a xeex ñi sa ñunu kelenoo wan leen leen lu yàlla wax la sa sa yitandi la ko alay ñu fole ay balaala le fanan kon kana te ku am te ku am te ku fortunate ba dem gis deet siiba aɗo ni min tata foy nam bindo aɓe ñami o bañi ma yegal président ne aba ah, fula président ye ko man dem na fa ate tata jeele jaaru wilema amini ñin konnami mbabulu ma sanni ko fa aya jolonje way de digut bari amang amang tunen kadum lolu dina la won wobe ñina yitandi la ni foofu binde fofu ala ye jeede da kere ñam digal anin ay minu halaki je jerejen jef suma mag ji muy chairman occasion bi Aliou Mbodj tey nga jégal ma ka kotoma chairman Aliou Mbodj seyam fama bi dama de ñaareel dema de waxtaan waxtaan bu sori wante tey suma waxtaan bi dafa gàtta lool ko ala diyamo ka jamfale wato dol bari biyaɓe sutiyalale baake folo folo ngamuta ko bimul lunnete mi yalon ko akummayata baake honorable ministre lands and regional government mu ne foog na ne tey de bés bu am solo la di Akibayo lunnon miya lon ko saafo alhamdulillahi rabbil alamin ɓayde ɗum ta sunkara kono kayra kono funta kono kayra mu ne bés la ñu ne ñu sant yàlla gannaaw boo xamee ni nii tàmbali nañ weeri koor bi ci jàmm ba jeexal ko tey mbe ala danila ngam mingo min sunga sunga ñama ma sunga ñama o falo mari ala samuta ñaaye barako ken di buur di borom bi suñ weeri koor su fekkee aw na yoon wala awut yoon yàlla jéggal ñu ko ja nangul ñu ko mbaa fola alhamdulilah rabbil alamin bii la ministre bi ne ñu ngi wax sant yàlla bi ñu yàlla indee ba tey ci jàmma mbaa fola alay baraka mbaa fola alhamdulilah rabbil alamin kabrin ay eh, ñim président ken dina ñu ngi wax yàlla sant yàlla bu baax a baax gannaaw bu ñu joxe président bu mel nii his excellency di his cheikh professeur Alhaj Dr. Yaya AJ Jammeh. His Excellency Sheikh Professor Dr. Alhaj Yaya AJ Jammeh. yalon alale a fala alquran o kono mune yalla de moko wax ci alquranil karim ako naye so mune sula meye ika tento ga ko santa di ko gerem aka la faale daf ko de yokka rek woto mini ka foko president ya jamme ya ganan di ko wax ne jerejef jerejef ñun lan lañ ko defal man boka guma si kuré bobu parce que yalla mi nga xamne mo ñu jagar sax def ne ñu ko gerem toujours so president ya na ko gerem bés bu nekk ako woto ateman kafo molto mini ka fo ko president ka tendun ka tendun ga mune ka barin tabe kafula molto mini ya lonko